kolos saar ñeent sang yi yor leen seeni jaam ci nu jub te aw yoon xam ni am ngeen yéen itam ab sang ca asamaan dëkk leen ci ñaan yàlla farlu ci boole ci ngërëm te ngeen fasaale nu ci ñaan yi itam ngir yàlla ubbil nu bunt nu mën a xamle kàddoom di yégle kumpa gi di kirist muy kumpa gi waral ñu jëng ma ñaan leen ngir ma xamle ko ni mu ware jëfe leen ak xel ci seen diggante ak waa àddina te fu ngeen amee jot fexe leen ba jariñoo ko na seen wax jépp fees ak yiw te am xorom ngir ngeen xam nan ngeen wara tontoo ku nekk tisik sama mbokk mi ma sopp di jëwriñ bu takku ak sama nawle ci liggéeyu borom bi dina leen yégal lépp lu jëm ci samay mbir lii moo tax ma yebal ko ci yéen ngeen xam xabaar bi jóge ci nun te it mu dëfal seen xol onesim lay àndal suñu mbokk mu takku mi nu sopp te mu bokk ci yéen dinañu leen xamal lépp lu xew fii aristark mi nekk ak man ci kaso bi mu ngi leen di nuyu moom ak màrk rakku barnabaas jot ngeen ay ndigal ci mbirum màrk bu ñëwee ci yéen teral leen ko yéesu mi ñuy dàkkantale yustus moom it mu ngi leen di nuyu ñoom rekk ñooy yawut yi liggéeyandoo ak man ngir nguuru yàlla te ñoo feexal sama xol jaamu kirist epafras mi bokk ci yéen mu ngi leen di nuyu du jóg ci di leen ñaanal farlu ci ni kuy bëre ngir ngeen taxaw temm ci coobareek yàlla gépp ànd ak ngëm gu mat ak kóolute gu wóor maa ngi koy seedeel ni mu ngi sonn bu baax ngir yéen ngir waa lawdise ak waa yeropolis luk doktoor bi ñu sopp mu ngi leen di nuyu moom ak demaas nuyu leen nu mbokk yi nekk lawdise nuyu leen nu itam nim fa ak mbooloo ñi gëm miy daje ci këram bu ñu jàngee bataaxel bii ci yéen fexe leen ba ñu jàng ko it ci mbooloom ñi gëm mi nekk lawdise te yéen ngeen jàng bi ma yónnee waa lawdise te nee leen arkip farlul ci sas wi la borom bi sédde ba matal ko man pool maa leen di bind nuyoo bii ci sama loxo bopp fàttaliku leen ne dañu ma jëng na yiwu borom bi ànd ak yéen